li si yéenekaay yi benn dëkk ñaari gaal di Thiès gi xar démb ñaari gaal waaw waaw yéenekaay yépp moom lañ xëyee tey ubbi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne moom président Sall ngaar yi boo ubbee xolam glace nga fay fekk ndax ndax dalal ga ñu ko dalal foo sànni mbatt mu takk foofe ca Thiès moom Sall ngaar mi ngi xam le ne mësul gis li ni mel loo xam ci mbex rek ma nga fa lii di sabar musique ak lépp loo xam ne rek day sar xolle loo nit rek ma nga fa ba tey ci journal bi mi ngi ñuy xamal ne moom président Macky Sall xelam dal na foofe ca ceesa les échos mi na démb moom président Macky Sall di rafetlu àndam ak Idrissa Seck ak responsable politique yëpp yama fa fekk ma ne fu dëkk neexee démb tribune yéen kaay na ma xanaa Thiès benn dëkk ñaari gaar di woto di moto bàppeeku neen jëmale Thiès tribune yéen kaay na ma ah lu waral li mu ne xanaa di raay troisième mandat dem ba fay digge kat dékkil raay Sud Quotidien dikk na ma ah loolu du yomb du yomb de du yomb li ni mel lu muy digee na ko seetaat te wax ci lii nga xam ne moo tembe mu ne mooy lan mu ne xanaa maanaa si xëyub ndaw yi njàng ak njàngale ak cosaan ak bi nga xam ne moom la ñuy jooy te noppeeguñu te Cees sañu desandi ba tey info yéene kaay mi ngi ñuy xamal ne Idrissa la fa dooree démb di ko cëxat di ko wax lu mel ni xeme naan ñii di opposant yi dañu ma iñaanee dañu ma soxoree ndax ñaar jàpp ñetti milliards yi may am te kat dañu maa soxoree ngir ma nekk njiital opposant yi ba tey ci ay kàddoom kii di sa Seck mi ngi xamle na ak ku bëgg doon président ngir yàlla waay bul booy réew réew mi info yéene kaay moo ñu ko xamal waaw ndeke pënd ba wareegul de ci coowal Ousmane sonk ak aji Sarr libération moo ñu ko xamal tey jii la ñuy leeral ndax clamé nañu ordonnance bu doyen des juges source aané wiiri wiiri jaari ndaare nanu wax ci procès Ousmane sonk ak Adji Sarr ndax xaar bi yàgg na lool de yàgg na lool dañu koy jeexalee kat ca Ndar benn benn citerne moo fa klaate ba ñaari taalibe ñàkk ci seen bakkana bés bi kat mi ngi xam xamle ne diwaanu Ndar tiit ak jàqare dëgg la toogee ak lu mën a am yàlla ñu yàlla defal jàmm